ñu ngi lay nuyu di la dalal euh, monsieur Guissé. Oh, waaw jërëjëf Elisabeth fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal euh, kii di président observatoire bu musique et des arts du Sénégal di OMART. Euh, mhm. temps yi li jëm ci bi millieur milieu muy milieu musique gis nañ coow li ci am gannaaw nag ba président waxee ne nañu mhm. auditer SODAV yow déjà. nan nga jàngatee euh, instruction président bi. Euh, d' abord euh, ñun OMART organisation boo xam ne liggéeyam mooy saytu wàllu culture waaye tamit di def ay proposition ndax yemuñu rek ci saytu mais aussi dañuy def ay proposition force de proposition la ba tax na lu bëri Sénégal am na tey ay avancées culturelles yu bëri Sénégal yoo xam ne ñun dañu cee contribuer largement léegi nag président de la République. Macky Sall dañ koy day dañu rafetlu d'abord ci décision bi mu jël pour auditer eva def évaluation institutionnelle euh, bu bu SODAV mais aussi auditer ko parce que SODAV dañuy dañuy rappeler rek moo remplacé DGA te dañoo defee ne woon société la boo xam ne buñ ko tegee acteurs yi seen bopp euh, ñoom ñoo koy gérer seen bopp ñoom ñooy tànn ñu jiite ñoom ñooy dawal lépp euh, société boobu nag bu taxee ba léegi xaalis bu bëri dugg na ci collecte yu bëri def nañ ko mais artistes yi ba tey dafa da mel ni tey loolu ndóol bi gën a am ci réew mi la ñu gën a sonn tey la ñu gën gën a teel tey lañ gën a téye léegi nag euh, je pense que moo tax président tamit jël euh, initiative boobu mhm. que ñu def évaluation institutionnelle ak ci ma ma nga xamal ne rek euh, tey jii ñoom bu dee liggéey nañu liggéey bu jaar yoon jaru ngi tiit mais bu ñu jaarul nag parce que dafa am commission de contrôle boo xam ne ñu defal sora bu léegi commission boobu dañ ko war a mettre teguñu commission boobu mooy commission de contrôle permanente bi mhm. nga xam ne inspection euh, inspection euh, générale des finances cour cour des comptes cour suprême ñoo ko constitué ak ministère de la culture di saytu liggéeyu SODAV mais commission boobu ay ministres yu bëri jaar nañ ci kenn musu ko teg SODAV tamit musu ko musul sax joxe euh, initié idée ne leen teg commission bi pour mu certifier suñu liggéey mhm. moo tax nag ñun OMAS ñu jàpp ne liggéeyu SODAV bi ñu ko ŋànk ba tey bi teguñu ko ci yoon te tamit euh, am na luubal. mbir yi mel euh, mbir yi mel ni mu am euh, coow gi ci laxasu diggante collectif say wi ak SODAV mu mel ni dafa am xëccoo ndax yàgg Saywi yàgg naa wax ñu saytu laata njiitu réew mi di wax ne nañu audité tey mu mel ni dafa am jaxasoo seen diggante ndax dafa am lu ci lëndëm lu ñu xamul. waaw mais wax naa ko léegi ci sama présentation nee leen. dafa am euh, tey bu société boobu bi ko bi ko Macky Sall joxe en 2016. kon tey daal euh, yéen gestion SODAV moo leen xaw a jaaxal. non gestion bi du sax xaw a jaaxal daf ñoo jaaxal ba pare dafa lëndëm dafa euh, dafa nekk loo xam ne méngoowul ak ñun li ñu bëggoon. Mm-hmm. méngoowul aussi ak doxalin ku bëgg lu leer. Mm-hmm. ndax tey bu doon da bëgg lu leer ñu jox la société ñu ne la lii commission bi moo koy saytu inspection générale des finances cour des comptes. cour suprême ak ministère de la culture ñoo ko war a constituer mhm. mais mu dawal ñeenti at yow mu musoo woote benn bët na ñëw leen saytu ma ñëw leen xool liggéey waaw léegi nag euh, président dem ba moom xool ne ñu yore mbir mi euh, coow bëri na te xam na ne moom tamit def na ci ay juróomi milliards ci ñeenti at yi euh, feta ba léegi coow laa ngi ci mu ne nag xaaral ma saytu ko te loolu nag dañ ciy rafetlu ndax ñu booba léegi ñu ngi ciy xeex Omar booba léegi ak Seydi ak yeneen acteurs culturels ñu ngi ciy xeex pour que culture bi aussi euh, parce que bu ñuy wax gestion nit ñi ñefe ne ay port autonome de Dakar ak yooyu rek moom la ñu war a di nekk fii di kaas mais culture bi tamit ay nit a ci dund ay borom kër ci nekk euh, industrie culturelle te culture mooy tirer mooy tirer développement vers le haut mhm. mais amul beneen secteur boo xam ne day tirer culture vers le haut vers le haut donc moo tax euh, Senghor doon wax la culture est au début et à la fin de tout processus de développement. donc non président de la république moom taxaw nañ ci te man gëm naa ne euh, gëm naa ne moom euh, euh, mun nga ko reproché lu ne ba mu des su dee su dara desul rek pour pour nga xam dara leer na ko xam. Mhm. waaw xanaa kenn bañ cee wax mais comme nga dem xam na ba jël décision wax ci ñun dañ koy remercier bu baax a baax parce que tamit ñun dañuy wax ne ne loolu la ñu bëgg bu ñu bu ñu kaatee dara ñoom jox ñu droit ñu jox raison mhm. te dem nañu ne tey dañ jox ñu raison dañuy sant yàlla bu wér. tey jii yow ma Mamadou gisee dégg nañ la nga ne SODAV dafa am loxo gi ci bokkul euh, mu am ku nekk ci ginnaaw di ko manager te donte SODAV am na équipe am bi nga xam ne ñëpp moom lañ xam lan moo fan nga teg wax jooju. non man kay li ma wax sax dafa leer dama ne Youssou Ndour mooy parrain bi. parce que. yow euh, parrain waaw parrain lu tax ma ne mooy. parrain bi uh-huh. parce que parce que bi ñu ko falee ministre de culture li mu njëkk a def mooy mooy wàccee jaabi si bi. jaabi tv moo ne woon président moom maanaam bi mu ñëwee toog amul benn pexe amul liggéey amul lu mu teg ci ministère de la culture parce que moom ministère de la culture bi gën a cuune ci Sénégal bi Sénégal am Youssou Ndour la. non mais affaire yi élection la woon élection la woon. élec lan mooy élection. équipe bi fi nekk dañ koo fal. non SODAV bokkul ak SODAV dama ne BGA. Euh, mhm. euh, bi jaabi ci bi jiite. bi Youssou Ndour ñëwee dafa wàcc jaabi sii bi mhm. te tey euh, BGA boobu moo continué nekk Sodav mhm. waaw nit kooku nag boo xam ne bii moom leen na ko ñor mooy euh, fi ñuy artiste yi di fayeeku seen xaalis mhm. yow loolu rek la si ñor amul leneen loo defar culture gaar mais kon kooku war a euh, ñaaw njort ci ci culture bi te tey tamit damay wax leen ne tey su doon moom Youssou Ndour su doon moom tey Youssou Ndour Sodav ni muy fonctionné nii keneen na ko yore muy fonctionné nii kon ba foofu ba léegi dégg nañ ko. Mhm. kon boobu ba léegi dégg nañ ko. Mhm. tey jii ndax coow lii euh, baax na ci industrie musicale jamono euh, gi nga xam ne mbas mi euh, dafa porter un coup à ce secteur. non non non coow li baaxu ci mais mais li tax coow li indi coow li mooy tamit nit ñi tamit mënuñu noppi rek ba xëy bés dee mënuñu ko waaw coow li coow li baaxul baaxul fenn Macky Sall sax li ko gars yi di coow ni baaxul ci moom. waaye nit ñi tamit bu ñu bëggee ku bëgg a dee wéqu. te tamit tey jii culture bi politique culturelle mun naa wax ni culture li Macky Sall def si culture en terme d' mais benn président defagu ko fi benn président de la République defagu ko fi boo boo waxee en terme d' infrastructure am na ñu def mieux que lui mais tey en terme de de d' argent financièrement li Macky Sall def bon kenn defu ko fi donc. loolu moo tax loolu moo tax ñun tamit euh, vraiment ñuy ñuy ñuy wax ne ne dañ ci war dañ ci war a veiller ba acteurs yi gis seen bopp bopp. Mm-hmm. waaw man daal euh, ñun ñun wax na te tamit euh, fu mu neex fu mu yem neex li ko xale yi di waxee fu mu yem neex. Mm, tey jii ndax jaral nañu lu ne. Mm-hmm. nga doon organe d'observation de la musique et des arts du Sénégal ñu bëggoon a xam ndax mbas mi am na benn évaluation ba seen organe bi def ci jëm ci perte yi. waaw bon xam nga mbas mi moom bi mu amee euh, président de la république de joxe na soutien boo xam ne ñun xam nañ soutien bi du soutien de taille. Mhm. parce que euh, xaalis bi mu joxe ci mbas mi bëriwul par rapport ak durée mbas mi. Mhm. mais quand même artistes yi ce temps soit peu am nañ ci lu mu tuuti tuuti am nañ ci dara mais loolu aussi dañ koy du du rafetlu mais di wax ne tamit mënoon na ko gën a. mënoon na fi gën a mënoon bëri euh, jàppale bi mënoon na gën a ëpp doole fii. Mhm. parce que jàppale du ay miettes maanaam ay cent mille franc cent vingt mille franc par par par nit. Mhm. loolu amul euh, amul du amul njëriñ euh, culture. Mhm. culture boo ko bëggee jàppale da nga koy jàppale si loo xam ne bu fa jëlee day day demal boppam. donc ñun ñun moo tax Omar ki proposé woon. benn fonds de garantie bancaire boo xam ne day garantie sur le plan financier. Euh, euh, ñi nga xam ne dañuy ñu ngi yëngu guddeeg bëccëg. Mhm. Euh, muy ay opérateur mu mu garanti leen ñu leb xaalis mu ne kon ne seen liggéey. Mhm. tey ñu dellu siwaat si coow li am am na réunion bu mujj bu am entre organisation professionnel yi yëngu ci wàllu aar bi ak SODAV bëggoon leen boole ngeen bokk benn kàddu lu waral réunion boobu la antuwul. waaw réunion boobu maanaam li mag yi li président demandé. Mhm. mooy euh, ñun partie prenante maanaam ñun ñi bokk SODAV parce que SODAV ñun ñëpp ko bokk. Mhm. SODAV Youssou Ndour moomu ko Ngoni Ndour moomu ko ñun ñëpp ko bokk. léegi dafa ne woon ñun ñëpp nañu toog waxtaan ñu évaluer liggéey bi boobu ba léegi fu mu nu nu mu demee. Mhm. mais mais daanaka ministère de la culture moo ko woote mais boo xoolee euh, SODAV ñoo fa nekkoon ñoom ñoo fa woon ñoom ñëpp euh, di di di ñoom maanaam ñoom daal bëgguñu ku leen saytu maam boo bëggee dégg lu dëgg bëgguñu moo tax ay say beeg Omar ak mu dégg dem ñibbi El Hadj mi nga xam ne moom aussi producteur la woon te bokkoon ci euh, El Hadj Ndiaye aussi euh, dem ñibbi parce que ñoom dañu indi seen conseil d'administration di bëgg a saytu seen bopp mais loolu mun a nekk. Mhm. c'est-à-dire que daal ñoom euh, man fu mu nekk nii li ma lay wax loo xam ne te yow loolu dama la koy may muy exclusivité. oui mooy ñun OMART lañu demander administration provisoire bu SODAV c'est-à-dire que so SODAV nañu dindi ñu leen jiite. jël euh, comme délégation. spéciale comme délégation spéciale daal. waaw mooy administration provisoire. en attendant commission permanente de contrôle bi Macky Sall yónnee le président yónnee pour euh, inspection générale des finance pour des comptes ak euh, ak ministère de la culture ñooñu mun a jël auditer boîte bi xool li fa nekk yëpp xool boo déeg yooyu après nag ñëpp mun a yem ci même niveau maanaam ñëpp xel yi mun a dal mais fu mu ne nii moom tant loolu amul moom Sodaar mun naa wax c'est un bébé mort-né. requête ko def déposer ko fan. waaw requête lañ koy def dañuy saisir un juge parce que ñun tey ayant droit yi am nañ droit saisir un juge suñu defee juge demandé ko administration provisoire société bi. Mhm. loolu day am. Mhm. tey jii mu mel ni dafa am ñu nekk euh, maanaam li ngeen di wax euh, ci SODAV di ñaaw lu gestion bi mu mel ni dafa am euh, ñeneen ñi nga xam ne ils disent le contraire tey gis nañ fi ki fi doonoon ministre de la culture di Abdou Latif daal di am woy bu rafet bi mu teg ci kaw SODAV ak it yeneen artistes yi nekk ci même millier bi loolu lan lañ ci mën a jàpp. ah Latif moom moom daanaka war na ruus sax. di tagg Sodaaf ndax moom ci boppam su nekkee ministre de culture moom moo ngi bokk nañ ci ministre yi gën a suune ci ministre de la culture yu Macky Sall yu yu Sénégal am waxuma la yu Macky Sall de mais yu Sénégal ndax dèjà Sodaaf moom moom moom si boppam commission de contrôle boobu ma lay wax moom Abdou Latif nekk na fa ñetti at tegul ko commission boobu mosu ko teg kon moom bëggul woon lu leer bëggul woon lu jub bëggul woon lu lu leer defu ko euh, Abdou Latif Coulibaly organiser fi benn spectacle boo xam ne cent et quelques millions Sorano boo xam ne euh, ci euh, grand théâtre boo xam ne président dafa yëkkati cent millions jox leen jox departement ba léegi cent millions yi ñun xamuñu fu mu ko dugal donc moom Abdou Latif euh, te li mu def nii daf ko war parce que day défendre boppam ndax ba pare weddi weddi président la def parce que président bu ne lañu saytu ndax doxalinu Sodav bi gisul ne normal la moom mu taggu ko kon moom moom maanaam dafa weddi le président de la république wax te tamit ba ci cappaandaw bi man xam naa Macky ñàkkul fayda Macky Sall ñàkkul du ko ñàkk fayda donc te je sais que ne moom dinañ ko sanctionné man je le sais bien. il sera sanctionné parce que commission inspection générale des finance boobu. ak cour des comptes bu ñu saytoo SODAV dinañ saytu ministères yi nga xam ne ci jamonoy SODAV ñoom ñoo ko nekk. Mm-hmm. mooy ay Abdou Latif Coulibaly ak ñeneen ak ñeneen ay Mbagnick Ndiaye ak ñeneen. Mm-hmm. donc kon Abdou Latif moom tôt ou tard il sera d' accord Abdoulaye Guissé lan ngeen di xaar ci ministre de la culture euh, bi ñëw. bon euh, ministre de la culture bu dee soppi mais euh, ministre la culture bi ñëw na nekk ministre de la culture bu nekk au service de la culture d' abord. parce que ñun dañoo sonn ci ministre de la culture yoo xam ne ay lobbyiste lañu. loo bëgg a wax foofu mais ministre de la culture yoo xam ne dañuy ñëw di ànd ak benn label. tey Prince Art ñëpp xam nañ ne. ministre yi fi yi bëri fi jaar euh, seen liggéey yëpp ci dimbali waa kër yu sunduur ak ñooñu donc euh, donc ministre de la culture daf ko war a nekk pour artistes nekk ci région yi hmm. artistes yi nekk ci ci fépp te arte culture du musique rek parce que am na li ñuy wax les groupes ethnoculturels ah tukulóor yi séeréer yi joolaa yi dañoo am aada ak cosaan hmm. mais ministre de la culture pour loolu yëpp la hmm. donc euh, ñun tey dañu gis ne ñun dañoo réduire ministère la culture ci musique feccagu te looloo tax Sénégal mënul avancer Sénégal war na weer ci jéego yooyu fecc waaw loolu ay aspect ay aspect rek ci biir la bon tey lëkk tey on parle de l' économie numérique bu ñu wax économie numérique parce que on parle aussi de l' économie culturelle. Mhm. économie culturelle nag c'est industrie culturelle la cinéma bi euh, le septième art mooy cinéma euh, les arts visuels yooyu yëpp a ngi fi. Mhm. théâtre bi yooyu yëpp a ngi fi mais malheureusement malheureusement que ñun fii euh, maanaam mbalax bi dañu foog ne mooy mooy culture. Euh, ba pare ñi nga xam ne tey jii ci yooyu la ñuy yëngu dañuy foog ne ñoom ñooy culture Sénégal te alors que bu ñu génn bitim réew kenn xamu leen kenn xamu leen coow lee fi nekk rek waaye kenn xamu leen. Abdoulaye Mamadou Guissé président observatoire bu musique et des arts du Sénégal Omart merci beaucoup.